xew te mu sol ñu ci ay naafeq Lassane Diouf. moom bëgg ngeen déglu nag parce que dinaa wax. yàlla laa yaakaar nag ak yonent yàlla Muhammad ak Sëriñ Tuubaa sama wasila lu nekk ci kër gi yëpp nag lii mu may xasee duma ci invité ay confrontation ci la ma ko subhanahu wa taala joxe nee naa leen le 28 septembre 1989 ci laa gis Ibril alayhi salaam alxuraan laa yore le 28 septembre muy alxames 1989 ci laa gis Ibril alayhi salaam mu wàcc ñëw ba kii ma ne ma sel ba di nga mooy sama doom bi Yaasin 94 laa ëmb ni sama doom muy sama borom kër Momar Mbay la tudd ñu kaw lax doom bu góor laa jur te nañ ko tudd Seydina Mohamed ñu ngénte ma ba ca ëllëg sa ci laa gën sama nekk nekk ci biti xel koom bukki yaa nga fa jaan yaa nga fa may kenn ñëw képp ku ñu gis Jibril na ko wax Moussa bi gis naa ko yaa ngi dégg bu baax lu bon ci doomu aadama wuñ la ca ca xol ba ci ginnaaw lay nekk te rottil nañ ma ko sant naa yàlla dul yonent bi ñii ñu bon naan serbe ñoo koy waxal billahi lazi laa ilaaha illaa huwa man amul sëriñ bu nekk sama ginnaaw Rasoul ci ndox mënu ko ci yow sëñ Tuubaa leen seen pexe he ku gëm sel bi ñëwal ku gëm sel bi toogal mm-hmm. ci loolu laay bëgg a waxtaan li mu wax dëgg gu wér la bàyyi leen tooñ yéen Sénégal bàyyi leen tooñ parce que tooñ baaxul nit bu fekkee ne li muy def docteur docteur bi boo demee seeti ko pour mu faj la nga dem mu jox la garab garab yi may la wér gi yaram docteur boobu sa docteur la nga dem seeti docteur am jàngoro mu jox la garab garab gi yokk la feebar docteur boobu bu ko seetee te soxlawul ngay wax ay waxam parce que du sa docteur mais nag tooñ dafa baaxul bàyyi leen jàmbur ci li mu wax noonu li mu wax dëgg la ku bëgg ñëwal ku bëggul nga toog mais nag salbe salbe bu ñu fontoo salbe bu ñu fontoo ñun ay taalibe Serigne Touba lañ yaa ngi jégg li ma la wax ay taalibe maam Abdou Aziz Malick dañoo toog maam maam baay ay doomam ay sëtam nekk ci kaw suuf mais yow yaay kan te yow fen yu mag yi nga fen fen yu yi nga fen kaamil bi nga yor xoola kaamil laa yor da ngay ubbi kaamil bi dañ ubbil kaamil bi nga waat nga ne billaahi wallaahi wa taalaahi kaamil baa ngi nit sama loxo gis naa jibril gis naa diw ak diw ak diw mais ba tey waatuloo ba tey ji waatuloo fenn rek nga waate mooy fi ñuy waxe ne fi nga waxe ne o oh, bu ñaa ngi wax le ay sëriñ a ngi sama ginnaaw ay nàngam ak nàngam xamale ma lax billaahi wallaahi sëriñ nekku foofu moom dangaa waat dëgg gu wér péng waaye li ci des lu tax waatoo ko boo gisee yonent bi waat ko ci kaamil bi bu ñu ah, bu fekkee da nga gis jibril waat ko ci kaamil bi bu ñu fontoo waaye kaamil laa yor ci sama loxo gis naa jibril gis naa diw ak diw bàyyi leen alxuraanu yàlla jigéen ñi fooye yéen waa Sénégal bu leen ñu fontoo yow yaay kan Ibrahima Ba mi jël coupe du monde coupe du monde tari alxuraan jibril feeñuwu ko yonent bi feeñuwu ko yow yaay kan soxna jaara ma jóge Touba. yaa ngi dégg li ma la gagné troisième place su coupe du monde. coupe du monde Karim alxuraan Jibril feeñuwu ko yonent bi feeñuwu ko yow yaay kan mais nag am nga ci droit parce que bu fekkee ne dëkk boo xamante ni président bi ko jiite moo dàq fen ñépp presse bi nga xamante ni ñoo wax ne ñoom ñoo yor opinion wu réew mi dàq fen ñépp bu la neexee nga toog ci caméra fen nu mu la neexee mais bu ñu fontoo ñun dégg nga li ma la wax nit ku nekk am nga droit wax lu la neex mais booy waat waatal neel billaahi wallaahi wa taalaahi man Selbé doom gis naa yonanti yàlla Muhammad gis naa Jibril bu ñu fontoo bu ñu fontoo bu ñu fontoo yéen yéenay ñan yoral say petaaw comme ñi ko daan yor di def lu la neex di wax lu la neex mais yow xam nga ne bi ngay yëkkati téere bi lox yi nga doon lox sax ci caméra bi xam nga ne dangay ngay fen xam nga ne da fen dimbali leen sénégalais ngir yàlla yërëm leen sénégalais yërëm leen xale yi doog a juddu fen yi ngeen di fen man li ma leen wax rek li ma leen wax rek man Assane Diouf sama bakkan bii sama bakkan sama ndaw lépp lu jëm ci ndëngte mbon lu ma bëgg def def naa ko mais li des ci sama dund li des ci sama dund man Assane Diouf man Assane Diouf man mi nekk fii nga xam ne Amérique laa nekk tekkiwu ma dara alaaji Baara Mbàkke mu Sëriñ Fàllu alaaji Baara Mbàkke Sëriñ Tuubaa daan yëkkati téléphonam di wax rus naa taxawati nit di di fen sénégalais mbaa mu leen duul bàyyi leen fen yi ngeen nekke kaamil laa yor comme yow Selbé kaamil laa yor kaamil laa yor ci sama loxo man tamit dimbale leen nit ñi bàyyi leen fen yi ngeen di fen waatal ci kaamil bi neel billaahi wallaahi man la Selbé Ndom yaa ngi dégg da ngay jël kaamil bi jëlal kaamil bi nga ne man la Selbé Ndom teg ko ci ne billaahi wallaahi wa taalaahi man Selbé Ndom gis naa Jibril wàcc na sama doom gis naa ne góor lay doon nangam ak nangam waat ko ci kaamil bi teg ci sa loxo mais ba tey defuloo ko alxuraan laa yor sama loxo di ngeen ma ba yee am nga droit nekk sëriñ am nga droit nekk tënikat am nga droit nekk lu la neex comme ni nga ko waxee docteur docteur bi may faj man su ma demee mu faj ma bu ëllëgee kenn du ma wax fu mu dëkk maa koy wëri yaa ngi dégg ñi nga xamante ni doyloo nañu la doyloo nañu la mais bàyyi leen sénégalais yi ngeen di fen surtout yow surtout yow nga yor kaamil bi ci sa loxo di fen sénégalais yi di fen sénégalais yi ci mag mu tol na yow ci mag mu toll ne yow yow xam nga ne li ngay wax dara du ci dëgg dara du ci dëgg barki Serigne Fallou Mbacke man Assane Diouf maa la ko wax kaamilu alxuraan laa yor billaahi wallaahi wa taalaahi yow Selbé li ngay wax dara du ci dëgg bu fekkee ne man li ma waat du dëgg xolal bu subaa yàlla na ma ko yàlla won bàyyi leen fen bàyyi leen fen bàyyi leen toog ci tele bi di waat ci Serigne Touba yoo xam nga ne Serigne yow ñaata doomu sëriñ Touba ñoo fi nekk. xam nga ne yàpp sénégalais yi moo tax nga toog di ko wax. ba pare am nga droit nag di wax lu mel noonu parce que comme li ma wax rek boo amee président boo xamante ni lu mu wax ay fen la am ay tele ay rajo yu nekk ci biir Sénégal loo xamante ni dañuy woo nit ñi di leen jay di yëkkati seen tur pour feeñal seen bopp xam nga li ma la pour gën a yëkkati seen tur ñu koy fen ñu gëstu luy dëgg ak lu dul dëgg bu leen neexee ngeen wax lu leen neex jël ngeen jëf yéen waa Sénégal yàlla nañu yàlla may jàmm ngeen baal sama xol dafa jeex nag sama xol dafa jeex ah parce que ñii nit ñu mel ñii ñoo yàq senegal nit ñu mel ne yow Selbé Ndom man Assane Diouf tudd sama baaraam ci sa kanam fenkat nga fenkat bu mag nga dimbali leen sénégalais yi waatal ci kaamil bi jëlal kaamil bi nga teg ci si loxo teg ci sa loxo ne man la Selbé Ndom comme ni ma ko defee léegi waat na da ngay fen teg ci sa loxo bi ne man la Selbé Ndom maa ngi waat ci kaamelu yàlla bi ne Jibril seet si na ma mais alxuraan laa yor Jibril yonent yàlla Muhammad Serigne Touba lépp ay fen la da ngay fen lenn dong nga waat ci dëgg mooy benn sëriñ nekkul ci sa ginnaaw loolu moom bi nga ko waatee da nga waat ci dëgg waatal leneen li comme ni nga waate loolu bàyyi leen sénégalais yi ngeen di fen dama am ay doom Sénégal ñuy toog ci tele bi di toog ci Facebook bi di toog fa bàyyi leen fen yi dootuma may kenn kuy nekk Sénégal kenn kuy nekk senegaal man Assane Diouf may dund ma nekk ci kaw suuf sii di dund di leen seetaan ngeen ni fen yenn fen yi duma ko may kenn du politicien du sëriñ du ko sant si du ko sant Mbàkke du ko ñëpp laa ci yemale ñëpp nag nañu défar Sénégal nañ ko défar ci ku ti yoon ñu taxaw ci say kanam taxaw na la da nga wacc yoon daraja du dara xam nga lan lan moy borom daraja est-ce xam ngeen ko ay gone nga juddu nek ci kaw su xamuñu lan moy borom lan la borom daraja di tekki borom daraja bañ ko mag ñi di wax moy ku am dara ku am dara te yeen yoru leen gat yoru leen yoru dara amulen dara yowmal khiyam ndax ay fen yu bari dimbali leen nit ñi nit ñaa ngi defaru nit ñi dañoo bëgg a defaru fi mu toll ni nit ñi xajatuñ ci ay fen ak ay njublang nit ñi dañoo bëgg a defaru ndax àdduna baa ngi yàqu te àdduna bi ci ñun la sukkandiku fi mu toll nii ci ñun la sukkandiku yàlla wan na leen ko bërki démb xool leen xale bu ndaw bi tekki wër jël coupe du monde coupe du monde njàngum alxuraan première place troisième place rus leen yàlla bu ngeen rusul doomu aadama yi rus leen yàlla kamaan bal leen ma àq yéen sénégalais yi bal leen ma àq Selbé bàyyi fen li ngay wax yëpp ay fen la ba nga ay at nag li may wax dafa am fu ma ko teg parce que li tax ma ne la da ngay fen ay at a ngi nii ngay wax naan lii dina am lii dina am lii dina am te dara amu ci moo tax ma ne la fenkat nga te tey li nga wax moo ci gën a rawati moo tax ma jël sama caméra wax ci yow bàyyil fen yi ngay fen sénégalais yi wasalaam